alhamdulilah allazi jaala raxatal qulubi bi madxil xabibi mahbub wa manaxal maadixina lahu fi kulli matlub asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi asalaamu aleykum mbokk yi bàyyi xel télévision Salam Vision ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziar ci biir réew mi ak ci bitim réew mooy diaspora bi di leen nuyu di leen ziar bu baax a baax di nuyu kilifa diini waaye nag di ci jiital xalifa général Tidiane Sy Babacar Sy Mansour ñaanal ko fan bu gudd ànd ak wér ànd jaamu yàlla ci barke sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ko njaboot Cheikh fekk fa sunu maam Serigne ak wér jaamu ca Léona ziar ko ñaanal ko ak njabootu moom xalifa gi dem ba Medina Baye fekk fa Mouhamadou Mahi Niass ñaanal ko yàlla su ko faram ak njabootu Mawlaaye Cheikh Ibrahima Niass dem ba Bouchra fekk fa xalifa ba Serigne Habib Ndiaye ziar ko ak njabootu Mawlaaye Serigne Ahmed Ndiaye yëpp noonu lay def ziar mboolem xalifa seen ziar mboolem kilifa diine ñu ngi lay nekk yàlla def jàmm ak sutura ak barke ci barke sallallahu di leen ndokkeel nag ci weer wi tedd bi ñu nekk muy heure Ramadan naan yàlla li fi nekk ci ay leer i barke ak i teraanga yàlla sotti ko suñu kaw ci barke yonent bi alayhi salaam yàlla defal ñu jàmm defal ñu sutura defal ñu tawfiq defal ñu taysir ci barke sallallahu alayhi wa sallam di ziyaara mboole koo ne yaa ngi bàyyi xel télévision bi Salam Vision ak seen soppe seen xarit oustaz Mouhamed Ndiaye soppe ne bi borom képp ak Seydina Mouhamed tey nag ñu am fi gan goo xam ne kenn na ci gan yi gan goo xam ne tabaarakallahu kilifa la di boroom xam-xam di ku tedd bokk ci njaboot bu baax njabootu Cheikh Seydi El Hadji Malick kooku mooy Serigne Ibrahima Sy tey moom lañu daal parce que yéen ak moom bëgg leen ci seen keppaam Seydina Muhammad mooy émission bi nga xam ne moom nga ñu safoo toujours di ko bàyyi xel mooy keppaaru Seydina Muhammad ñu fas yéene fi ànd ak suñu soppe suñu xarit Serigne Ibrahima Sy Serigne Ibrahima Sy ñu ngi lay daal bu baax ci keppaaru Seydina Muhammad lan ngay nuyoo soppe yi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñi ñuy ñëpp di leen di ziara di leen baal xaq te di leen baal ñaan yàlla mi borom jéggal wala ñu jéggal amiin ci barke Cheikh Ramadan al Karim ci barke alxuraan karim yooyu bu baax Oustaz Mouhamed Ndiaye Sow bi nag mm-hmm. di la ñaanal yàlla yor yàlla gën a dëgëral taxawaay mm-hmm. la yokk fan wi yokk kàttan wi di ji bunt yëpp di jafe rasulallah di nuyu waa télé bi yëpp nag ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. kon mi ngi noonu xam Ibrahima si loolu indi rek ci Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ak waxu mag yi araftu li salma باليفاء المغاني محمد منصور نانا رضي الله عنه غدت لسان البو سرات البواليا الحاج منصور نانا رضي الله عنه ووهبت بها حيران من لائج القصاها بكات الزفرات الجوانح باكيا وسائلها عن أهلها أين يأمم فثم الصلاح أن تجيب المناديا محمد منصور نيسا بتيبة بين الخبر soxna ay dañu la koy may soppi alaaj Mansour la bi tey kon Aida mu ngi nekk si tafa daal di soppee Alaaji Mansour ñu ngi koy nuyu di ko ko may. bi tey ba taba inaal xabri. kooku Alaaji Mansour mooy woy xasida bi turandoo 1944. bi tey ba taba inaal xabri. toll ci 44 ans yoroo yoroo altine. Alaaji Mansour ne bi tey ba taba inaal. waaye xalifa bi mooy woy Rasulillah bi tey ba tabay na xabri. bàyyi xalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour yàlla na fi yàgg téeméer. bi tey ba tabay na xabri. bàyyam na ko yow Sidna Muhammad bi tey ba ta nekk na ci tey ba tey ba muy Madina ndax avant islam ñu koy woo Yasrib waaye bu Seydina Muhammad ñëwee climat bi saxaaba yi ñu ko ñii di feebar ñii di sibaru Mustafa ñaan pour yàlla teel climat wu Madine bañ mujjee ko tuddee Tayba. bi Tayba tabayal xam ni um xullati. laaj bu suur nee na ci Tayba mar gi ma mar ci leer soxna Binta laaj bu suur nee na mar gi ma mar ci leer fenn rek laa ko mën a naanee mooy ci kaw Rasulillah بتيبة بينك بالمطرق التي منصور nee na. laaj Mansour nii nag man li ma mën ci leer fenn lay gis fenn rek laa ko mën a naan ne ba na naam naa ca mooy fan mooy rawdu rasulillahi. wa min bari xayri rusli utlu kitaabiya. Maam Mansour nee na ki nga xam ne diggante xabroom ak minbar ba mu doon taxaw du julli toolu Sarr nee na ci toolu Sarr aljanna yi Alaaji Mansour ne la foofu laay daanee sama discours yi ma Mansour. Oudar Yohana Chawou xital min hawa. Serigne Pape Alaaji Mansour nee na Alaaji Mansour nee na. cofeel bu nekk ci man maa ngi gàccante moom di puusante moom di moom. ashaaya ba commencé jàpp sama biir di lakk sama biir di lakk sama yaram ngir bëgg yi ma bëgg Rasulillah. falamma danawna min. Alaaji Mansuur Sëriñ si sa turoon sa soppi ba sa maam Alxaaji Mansuur nee na. ba ñu demee ba nga xam ne jege neen rawdu rasulillahi sama ba diwan jalaa ndax ndax yóbbu na si Laaji Mansuur dafa dégg xadiis Yonent bi bi mu demee Makkatal Mukarram def farataam ku ko neex mu jël avion dellu Sénégal waaye Moussa ma wax ne man xajja wala yazur ni fa xajja faani Sidna Muhammad seen soppi ba soppi rasul soppi Sidna Muhammad soppi Sidna Muhammad seen soppi bi di rasulillahi ma waxoon ne képp koo xam ne aj nga ka te ñu woo ziyaara ba man Seydina Muhammad Rasul mu mam Rasul xam gi mu xam loolu moo tax keroog ba muy dem di ziyaara yonent yi yére yi dàq ci yére la sol ndax ki dàq ci jaamu yàlla yi lay seeti mooy parfum bi dàq ci parfum yi la parfum ndax gën leen ñëpp parfum la dem seeti Moustapha moo dàq ñëpp moom Rasulullah ba bëri tourné day min salal badri wal jalaa ci la pavillon bi ummeeku ma commencé jàkkaarloog sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. rasulun. Mame Mansour Mame Mansour jàkkaarloog rasulillahi. rasulun. jàkkaarloog moom ko. rasulun nan ko rasulun ndaw nga hamidun aji sant nga hamidun santakoon nga wa muhammadun yow lañu sant nabiyun sama fa uxaa ana soppi sidna muhammad ana soppi rasulillah waxaat ko rasulun حميد حامد ومحمد نبي سما فوق نبي سما كين نبي سما فوق سما كين سعلي الحاج منصور يتيار صلى الله عليه وسلم رسول حميد حامد ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي سما فوق سما كين سما منصور سيدنا محمد بمن يكي رسول nekk ndaw lu ñu yónni en même temps yàlla daf ko solo xamal ko mu xamul kenn moom rasulillah alayhi salaam. huwa dawhatul uzma yuzallu bi zilli. bàyyi xalifa bi dee bàyyi xalifa bi dee Sayyiduna Muhammad mooy garab bu mag gi mooy garabu ne ñu tànn li nga xam ëllëg yawmal xiyaam ñëpp ngi uti ker ci keru yonent yëgoo na seen si yawmal xiyaam ku yonent ku dugg ci keru yonent bi alayhi salaam ca tàngooram ngay ne yàlla ñu yàlla boole ca ker. يمن بلا من وينفي المعاسي رسول الله alaaji Mansuur ne yow mu def lay may bi laa man tudd ndam yëgoon am na ñoo xam ne bu la mayee nga yëg ne may neen la fu nekk dana fa waxtaanee yére bi mu sol naa ko may ci si bi mu sol naa ko maa ko may waaye Moustapha Sy Sy yaa koy seeti toog ak moom di waxtaan ak moom mu am muy waxtaan ak yow di waxtaan ak yow ba sa ñibbi jot mu gunge la yëkkati alalam jox la naan suba ñëwaata kon yow mënu dafa lay may bilaa man it na mu waaye yan fii ne sa wet almaasi yaa mooy yàlla yi. wal mutaamajdan. mooy denc kay ci wal mutaamajdan. alam nasra laka sadrak. wal mutaamajdan. wa wada'na anka wizrak. wal mutaamajdan. wal mutaamajdan. wal mutaamajdan. wa rafa'na laka dhikrak. يتيما فأوى ووجدك ضارا فهدى عين الفاقر وأما اليتيم فلا تقهر وأما الصائر فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث yàlla na Seydina Muhammad danaa la jox ba nga kontaan. lu mën a doy rek lu lu ko tedd sayyiduna muhammad la wa fakhran ak puukkeeru wa suudanan ak càng wal murtajaya man mhm. yasibun nawa moom la yaa ëllëg bu karam yëpp ba jaawee wa awwalu man labba xoolal keroog bi yàlla xamee ruux yëpp teg leen ci benn salle tànt naan kan mooy seen borom alastu bi rabbikum Moussa keroog ba yàlla taxawee naan kan mooy seen borom ki njëkk a tontu yàlla na ko yàlla ankay d'accord ne yàlla yaay suñu borom Sayyidina Muhammad والروح الرحمن كان مناجيا booba ma ngi nekk ruux di diyaale borom bi subhaanahu wa taala moom Sayyidina Muhammad waxat xaas maxu demal في الأبواب مسبحا صلى الله عليه وسلم وجاب بورا عشرة مرتدى الله يقول رسول الله وكان أبي بالنبوة عالما وآدم بين الماء والتين ساويا محبة يمن بك رسول الله يبارك وأمن أجانا يسي إنجليزي يا رب وتكسب من الأبواب من كان عاليا محبته بك رسول الله يمن بارك أمن كل محبته بك رسول الله رحمة يرمان الله وهي محبته بك رسول الله يفلي ودك عينيه foofu yéen a ko doon incha allah. kon bëgg rasulillahi la daf lay may ay leer soo bëggee rasulillahi boo ñàkkee leer. da nga bëgg leer. fekkee da ngaa ay leer. bëgg rasulillahi. leer ba nga ak leer ku la gis bëgg la kon. ku bëgg a leer bëggal kenn mooy rasulillah kullul xulubi uh-huh. ilal xabibi tamila waaw waaw mm-hmm. wa ma'i bi hada shahidun wa dalil kon ñoom takk neen seen bagage suñu takkee seen bagage fan la ñu jëm fenn la ñu jëm mooy kër Seydina Muhammad alayhi salaam ama dalil dalakata Muhammadan waa kat beneen sama tegtal mooy lan su ma tuddee rasulillah fafaadumul a tësi waxtaan ba nee na suñu tuddee rasulullah yi ñi nga xam ne ñooy jàkkaarloog salaam yi suma duñu mën a téye seen bopp di jooy ngir bëgg rasulullah yi nga gis nit ki di jël di ko def ci yonent bi alayhi salaam lu ko waral mooy bëgg rasulullah yi si léegi-léegi nit teral la fonk la dina màgg dina xormal nga yaakaar na sa jëmm jee tax fekk na sa jëmm jee tax xam ki tax mooy ki Sayyidina Muhammad bi ngay waxtaanee rasulullah bi ngay wëy ak bëccëg moo tax ñi lay teral ndax ku teral ku wéy yonent bi alayhi salaam yàlla tàggat ay jaam yoo xam ne bëgguñ ku dul yonent bi di la defal ci laa ngay sëy a apim bi min sayyidil hamuli eh wax ko sa kaw apim bi min sayyidil hamuli gaaw téef ci dëgg nekk la ci nga xam ne mooy yenn problème yëpp musul xasal bar ay ah waalidil batoo kooku mooy yenn loolu mindeefi ku boo ko xam mooy bàyyi Fatima ablim bi min sayidin mi abdaa yow kii fu cet danga nekk na ci sang bi nga xam ne lu waaye mën a mën a doxe sidina Muhammad mën a dàq joxe baxril hudaa wa xeyrul anbiyaay mooy géej ñu ñëpp moo gën ci yàlla moo gën ci nit duuna ci yàlla yëpp rasulullah ci gën akrim bi min shafii mushafai kaw kii fu cet danga nekkal ci nga xam ne mooy mooy aji romb ji te mooy ki ñu romb la ëllëg moom rasulillah. inna shtidaadil hawli yawmal fasaa. bis bi nga xam ne ñëppay ci copain ak copine di dawante copine ak copine di dawante jëkkër ak soxna dawante xarit ak xarit dawante doom ak ndey dawante bés boobu kenn nu yaakaar sëriñ Samba muy rasulillah. akribii min munqidhi rahim. kaaw jëfu ca danga nekk na ci ki nga xam ne mooy xettalikat bi te kooku mooy ay am yërmande moom rasulillah. akribii min maljain kawteef yi min kawteefu tedd nekk na ci wéruwaay bu tedd bi mooy rasulillah akrim bi kawteefu tedd akrim bi sa maam nee na kawteefu tedd akrim bi Ajaa Xadijatu Gey sa soppe ba da baax nee na kawteefu nga nekk na jaam bi nga ca borom akrim bi man ilahuna yarhamuna kawteefu tëdd nga nekk na ci ki nga xam ne yàlla bu ñu yërëmee mu ñu yërëmee ci daraja rasulullah akrim bi man bi jaahi nil nal mu na caane gay gis nga yàlla ne alaaji abdu nee na sa soppi ba nee li ñu am ñu ko amee ci daraja rasulillahi ak mbii min sayyidil awlaahu te fa ca dee bi nga xam ne bu nekkutoon moom subhanahu ma urifa al ilahu du ñu xam sell bu yàlla dëgg dëgg du ñu nga nekk na ci ki nga xam ne mooy kaddu yërmaane moom rasulillah alayhi salaam sayidi man mada wa man sayaa Abdou nee na mooy sang ñi weesu mooy sang ñi nekk deux mille vingt et un deux mille vingt deux ñiy ñëw deux mille vingt trois deux mille vingt quatre ñiy ñëw ci Moustapha mooy seen sang. akrim bi akrim bi. kawteefu kawteefu te danga kawteefu te danga kawteefu te danga. min sayyidil daara ilal adidil ahadi. kawteefu te danga nekk na ci sang bi nga xam ne seen si mooy sang ba wóor na ñëpp fu mu leen jëmee ci yàlla subhanahu wa taala. kawtif tedde ga akrimdi kawtif tedde ga min ma adiden nen kene ciki tedde sayyidi kultirakin wasaji samam abdou neena képp kuy sujjóot Moustapha mooy sa sang képp koo xam ne yaa ngi rukkoo Moustapha mooy sa sang képp koo xam ne yaa ngi sujjóot loo mën a mën a sujjóot loo mën a mën a rukkoo Moustapha doo ko ci daal kayfa taaxa kon sëñ si kayfa kayfa tarxa matxu ko nga neex ba bëggal soppi si loolu xam nga nga xam ne ñooy kal anbiyaa yaa sama almata wala xatama sallallahu alayhi wa sallam waay sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan kayfa tarxa ruqyaka al anbiyaa sallallahu alayhi wa sallam yaa sabaan mata wala taxasama sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam lam yusaawiku fi ulaaka wa xadxa lasanan minka dunuhum wa sanaa sallallahu alayhi wa sallam lam tadal wallahi waxal ko ca kaw lam tadal ruuxu fi dabaa'iril kawni tu'ta lakal ummahaatu wal aabaa'u سيدنا محمد وعزك لم تزل آه. لم تزل لم تزل والله في دمائر الكون تعتاب lakal ummahaat wal aabaat su pes yi ndaw tatabaaha tatabaaha sama yàlla fa war a si dafa yaa ngi lay nuyu tatabaaha tatabaaha xoolal aadama dénk loolu tatabaaha xam nga si ñoom Muhammad daal di rek jamono ji puukari wu tatabaaha Mustafa rek dégg tatabaaha tatabaha adama diggul tatabaha tatabaha soxna Mariama foo mën a cité Fadia adama diggul tatabaha tatabaha wala Ibrahima diggul tatabaha tatabaha Moussa déggul tatabaaxa. tatabaaxa. Ibrahima déggul tatabaaxa. tatabaaxa. ñoo ne si avant Moustapha di juddu. tatabaaxa. nit ñi dañuy lekk mën. tatabaaxa. nit ñi di ngor gi bëri fi. tatabaaxa. ñi di agressé. xas jigéen ñi. xas jigéen lu baax ñi. tatabaaxa. di tataba di jëlante seen alal tataba Moustapha juddu tataba xërëm ya toj tataba Moustapha juddu tataba moo ni bon de tataba Moustapha juddu tataba am Moustapha juddu tataba mbaax am tataba Moustapha juddu tataba dimbalante am tataba Moustapha juddu tataba bu leen jaamu xërëm tataba Moustapha juddu tataba bu leen tas jigéen ñi tataba Moustapha juddu tataba bu leen lekk mel tataba Moustapha jamono lëndëm Moustapha leer jamono jamono la di ko kër jamonoy kontaan jamonoy muñ di am mbégte di dund rasulillah tatabaa kukiru tatabaa tiituru tatabaa am ngay jaaru tatabaa ngay bég bi ka rasulu watasmo mu ngay bég bi ka ci daw al rasulu jamono wa tasmo di yëkkatiku ngir sa dikk yow rasulillah bika aliya baxdaha aliya o yow ne Moustapha lan ñu juddu lan di puuki wu naan ko maar bi man maa la gën hmm. maar bi ne pour tax gën ma mu ne ko Moustapha ci la maar bi ci mooy mooy sori naa ko maa la gën ndax Moustapha ci man a jege juddu mi ngi procuré wu ci 2020 2020 di procuré wu ci 2021 di ko xamal maa la gën a jege tudd rasulillah aha wa bada wa bada feeñ na wa bada feeñ na wa bada tàmbali na wa bada feeñ na wa bada wa bada bisan wa bada feeñ na lil wujudi min ka karim mooy ñeen bi ndéefi di wujur ñeen bi ndéefi min ka ci yow yow Seydina Muhammad karimun nga aji tedd min karimin abaahu kurama yow Seydina Muhammad da ngaa bàyyi ko ci ay kilifa yu baax bàyyi yu baax maam yu baax yumpaañ yu baax tànk yu baax nijaay yu baax yow rasulullah alayhi salaam ba ñëw nag gën leen a baax nasabul basiru nasabul ulaa bi xulaaw bismillah seg si doxalal ko nee daal askan wi yonent bi alayhi salaam askan la koo xam ne wurusu jawzaa lu muy rafet rafet askan wi yonent bi noonu demee am kër mooy wurusu per bu mag bi. Hmm. muy Seydina Muhammad alayhi salaam. Muhammadun misaalu ko ɗo bayi basal baara kitaalu moustapha catɗo murtaɗa wiiri wiiri jaarenaaji jaarema yomɓe ñow sappo jeba jeba takkusu mo ñow sappo jumayi jaaren ko kuma o hoonde alamini rahman fi safina be adani hani musil madina man bayi basal baara kitaalu moustapha catɗo murtaɗa kela komna yommuti bir gawnga cila yalla yiɓan ay malaka ñow dimanal bamba yaani jam waye xamal yow yaay binnaano rasulullahi yaay ki nga xam ne yaa sant Rasulullah na yàlla xamal ma ne may bindaan Rasulullah maam yi soxna maam Bousso Lo surtout sëñ Daa Abdourahman Lo boobu Muhammad daal ku mel ni moom dootul amati. fi ma mata wa abadan la yaati. ak li war a ñëw ku mel ni rasulillahi daal dootul amati loolu sëñ Tuubaa bàyyi sëñ Saay yaa raaxila mutasaabiqa rukbaani mhm. naxwal jinaani mhm. ruuxi wa raihaani kooku si Ahmed Tidiane Cheikhuna Tidiane Chérif Fatima Xasani yaa raaxilan mhm. mutasaabiqa rukbaani نحو الجنان سبيسي أحمد تياني يوحي ريحاني تبارك الله خلقي جاني شريف هذا الحسني أدي الملوكة من أسيري على شأني وإني حال الحول مدة الأزمان بارك الله لولا مخادر عليني إلهنا عرف بما أحوى بها ساني شيخ تيجان لا تحصرن توسلا وتضرعا وترقعا bil ayni wa tijaani cheikhuna tijaani salma wasal wa ziyaadatan bi xubbi kadawil qaraabati saayal awtaani cheikhuna tijaani bahrun tamawajja wa yufiidu min qaydi alaaqatin mutarajil الأرض والمرجان شيخنا التيجاني قد شاهد عين حقيقة عينه شيخنا التيجاني وتكشفت عن فتيه النوراني شيخنا التيجاني هذا الذي إنسان عين حقيقة متصرفا بحقائق العرفان شيخنا التيجاني هذا الذي قد نال رضوان العلا شيخنا التيجاني بمنزل الآيات من qur'ani cheikhuna tijaani cheikhuna tijaani cheikhuna hmm. tijaani cheikhuna tijaani cheikhuna tijaani wa rahmatun ah. wa hidayatun wa kifayatun wa madayatun kawaabilul insani cheikhuna hmm. tijaani huwa rahmatun hmm. wa hidayatun wa kifaayatun wa madailahu huwa nihlatul insani شيخنا التيجاني الخصر المولى طريق شفاعة يكفي السلوك به عن البرهان mu ngi noonu Alioune Burhaani kooku mooy Seex si Ahmed Tidiane moom mi nga xam ne mooy sëtu Sidina Muhammad boobu nga ko moom moom mi nga xam ne moo waxoon ne xatamaa yahaataani ala raqabati kulli min ladun aadama ila naqati fi suur samay ndëkku teg naa ko ci bopp loosu waliyu ba yàlla soso aadama bay addina tukki ku fi ñëw rek maa si kilifa loolu la Mawlaa si Ahmad waxoon kon xaaji bé Ibrahima si am na lu mbégte am na xam naa ne soppi si Seydina Muhammad yi nga xam ne ñooy bàyyi xel Salam Vision pour rawatina nag seen keppaar Seydina ak seen soppe seen xarit Oustaz Mouhamed Ndiaye soppane am na lu mbégte Serigne si wallahi way yi neex na am na lu mbégte am na lu kontaante yàlla yàlla barkeel ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam naa ne nga tàggoo ak say soppe nuyu say soppe ziar leen incha allah ndax ay borom soppe la. ok bu ko defee rek. Mm-hmm. ci biir bu baax a baax. macha allah. di lu waat di nuyu ñëpp rek. waaw mm-hmm. di ziare ñëpp. Mm-hmm. di baalu xaq ñëpp. waaw di julliwaat ci yeneen. sallallahu alayhi wa sallam. ak seen cofeel ci moom. sallallahu alayhi wa sallam. amuñu ku dul bi sallallahu alayhi wa sallam. Eh. Eh. waaw mënuñ fi amee lu ko ëpp mënuñ fi amee lu ko sut. Hmm. kon nag yàlla ni yàlla def nii tagg yeneen bi. amiin waaw. mooy suñu mooy suñu passion. Mm, ndeysaan yonent bi lañ bëgg. ndeysaan yàlla ñaanal def dëgg dëgg dëgg tàggat yonent bi. Mm. jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. di la ñaanal yéen bu baax yàlla gën a dëgëral. dëgëral baax bi. di nuyu ñëpp rek di jaare ñëpp rek. ñu ngi seen soppe. waaw di nuyu suñu sëriñ sëriñ Habib Ndiaye ca Bichra. Mm, di nuyu Pape Pape Gueye bi noo fay ca. waaw waaw seen Amar sama génération. Alhaji Malick Samb ñoom ñëpp rek. di leen di nuyu bu baax. di leen di ziara. tabarakallah tabaarakallaahu xaadis yi am nañu mbégte am nañu kontaante te xam ne ñi nga xam ne ñooy seetaan tey Salam Vision am nañu mbégte daan nañu am mbégte nag bu baax mm. waaye tey lañu gën a am mbégte tey lañu gën a kontaan kon ñu ngi di la ziar di la ñaanal jàmm ngay mm. suñu soppi suñu xarit mooy ca daara ca nga baax lool yàgg lool tabaarakallaahu ngay doomi leer kilifa mm. kon macha am nañu mbégte am nañu kontaante ziar soppi yonente ba salaam siyaara suñu soppe moom suñu xarit Serigne Pape mi nga France ak sama turandoo boobu di ko siyaara bu baax di ko ñaanal jàmm bi rek ci di xaq ci koor bu baax baax ziyaar ak soxnaam sama papa mu koy ziyaar ziyaar bi si mu ngi France soxna Hawa ñu ngi koy ziyaar baax mu ngi Parcelles Intercept mu ngi France ñu ngi koy ziyaar ak borom këram di ko koy ziyaar ak soxna ngi koy ñaanal yàlla bu baax yàlla jàppandal ko suturaal ko ak borom këram ak njaboot yëpp yàlla barkeel ko soxna yaa fa sa soppe bi mu ngi lay laaj bu baax tabarakallah moom kanam rek mu ngi lay laaj ñu ngi koy ziar bu baax a baax macha allah soxna Xadijatu Gay soxna Caane Gay ñoom ñëpp si te fajaara bu nekk ñu ngi leen muy di leen ziar soppe rasulillahi ñu ngi leen bëggee di leen ziar soxna Kiné Gay ma ngi New York ñu koy ziar di ko ñaan yàlla tawfiq ak tey si yàlla defal ñu jàmm defal leen ko nuyu sàmm ñi nga xam ne jàkkaarloo ak ñun ñu ngi koy ziar di ko ñaan yàlla télé bi yàlla barkeel ko ngeen am jàmm ñi am am sutura ñi am sutura ñi am barke ñi am barke wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala